Dakar gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 Production le leader dans son domaine. ah lii ñu am lépp tawfeex sëriñ sëriñ bi. moo nekk tolloog garabu niimaa gi. sëñ Sadio Mbaye mooy magi Cheikh Samba Diarra moo yóbbu woon Cheikh Samba Diarra Mbaye ci borom Touba ci liñ nettali ci taarix sëñ Sadio Mbaye ku yéeme woon la ku géeju woon ci wàllu xam-xam la barabam moo féete nii ci mag ñi àndal ak borom Touba la bokk. kii moo dëkkoon Saalum. yàlla sëñ Mandoumbe ñooy bokk suñu waa génn jamono. sëñ Bamba Leeba mi moo ko sëñ ñoo ñoo bokk bis bi ñibbi àjjana mais sëñ Mandoumbe lañ njëkk a jenc. waaw bi ñu ko jenc bay génn. ci la ñuy bi ñoo ñu ko ayatul kursi lañ jëm ci xam naa ko. sëñ mm. Bamba Leeba yegg si na. sëñ Bamba Leeba yegg mais sëñ Mandoumbe lañ njëkk a jenc ba pare. ba sëñ Bamba sëñ Bamba Leeba fii mooy barabam. Saalum la dëkkoon ñëpp xam nañ ko. ku ku raagoon ci mag ñi la. ci mag ñi Euh, te loolu nag li ñu ci jublu mooy euh, mag ñi bëri na fii barab yi ñu fi ñëw di jaare ñoo xam ne mag ñi bu ñu ñëwee di leen ziare grâce a Gana Messere waxtaankat ndaxte bëri na ndaw ñu ñëw fii man armée fii barab yi ma xam bëri na ndaxte man fii li ma fiy nekk bëri am na ñoo xam ne seen barab yi maam yi sax xamatuñ ko coow leen jàpp Gana Messere euh, yitteem yëpp gëstu mag ñi woon ak di ko waxtaane ku mel noonu nag bu ko yoon yu amee sag lañ ko war a def bu nit defatee leen lu nuru njuumte ci yoon wi nañ ko woo ñu waxtaan ak moom moo gën yenn yi nañ bàyyi internet beeg par parog yàqante gi amul njariñ ndax bëri na mag ñoo xam ne ndaw ñi tey bu ñu leen xamee grâce à Gana Messere seenub liggéey Sëñ Tuubaa lu màgg la waaye liggéey boo gis dañ koy wane te moom wane liggéeyu mag ñi moo ko taxoon a jóg ñu avancé ca kanam ñun dañoo liggéey yooyu loolu xam sëñ sëñ sëñ Mamadou Dagana sëñ Thierno Sall bi di jëriñ ñu ñu. si Mamadou la. si Mamadou Lamine Diop Dagana. mais nga si ne yaakaar naa bi sëñ bi ñibbi àjjana moom la tëjuloon. waaw sëñ Mamadou Lamine moom la tëjuloon tëjoowoon ak moom ci njaare. kon nga xam ne boo xoolee. maam armée sëñ Madiba Sylla moo nekk ne la ca kanam. waaw moom sorewut sëñ Madiba Sylla ak moo boo avancé da ngay dem ci barabu sëñ Jéeri Waadaan ak sëñ Paate Amar. nii maa gi sëñ Paate Amar ak sëñ Jéeri ñoo ah te loolu sax sëñ bi. sëñ bi waaw moo waxoon nañ leen ko yóbbu ci wetu sëñ Paate Amar ndax mbokkam soo avancé barabu maam Seynabou Ndiaye moo nekk na la ca kanam. ak euh, soxna Mariama Jaxate mm. waajur suñu Abdou Lahad ak sëñ. Mm. Euh, waajur suñu Abdou Lahad kii suñu Abdou Lahad Mbacke. Mm. soxna Mariama Jaxate. Euh, mel ak ak soxna Aminata Lo. moom moo ngi foofu noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy ngi foofu noonu ak doomi sëñ borom Tuubaa ju na Aboubacar Sidiq waaw. sëñ bi am na ku mu tuddee doomam ju mu tuddee Aboubacar Sidi fële la nekk mooy ci barabu soxna ñoom soxna ak ak ak magi sëñ Fallou ji sëñ Afia sëñ Afia Bousso moom it moo ngi fële noonu moo sëñ Afia moo nekk fële ak soxna Aminata Lo ak soxna Mariama ak ñoom moo nekk tolloog garabu niimaa gi sëñ Sadio Mbaye mooy magi Cheikh Samba Diarra Mbaye moo yóbbu woon Cheikh Samba Diarra Mbaye ci borom Touba ci liñ nettali ci taarix sëñ Sadio Mbaye ku yéeme woon la ku géeju woon ci wàllu xam-xam la barabam moo féete nii ci mag ñi àndoon ak borom Tuubaa la bokk kii sëñ Bamba moo dëkkoon Saalum moo sëñ Tuubaa wax ne ko yàlla sëñ Mandumbe ñooy bokk suñu génn jamono sëñ Bamba Leebam yi moo ak sëñ Mandumbe ñoo ñoo bokk bis bi ñibbi àjjana mais ma Mandumbe lañ jëkk a jenc waaw ñu ko jenc bay génn ci lañ ci lañ ayatul kursi xam naa ko sëñ bambale baa yegsi sëñ bambale baa yegsi ci diggante mais sëñ Mandumbe lañ njëkk a jënc ba pare ba sëñ bamba sëñ bambale baa fii mooy barabam saalum la dëkkoon ñëpp xam nañ ko ku raagoon ci mag ñi la ci mag ñi euh, te loolu nag liñ ci jublu mooy euh, mag ñi bëri na fii barab yi ñu fi ñëw di ziare ñoo xam ne hmm. mag ñi bu ñu ñëwee di leen ziare grâce à Gana Messere waxtaankat ndaxte bëri na ndaw ñuy ñëw fii man armée fii barab yi ma xam bëri na ndaxte man fii li ma fiy nekk bëri am na ñoo xam ne seen barab yi maam yi sax xamatuñ ko coow lee leen jàpp Gana Messere Euh, yitteem yëpp gëstu mag ñi la woon ak di ko waxtaane ku mel noonu nag bu ko yoon wi amee sag lañ ko war a def bu nit defatee lu nuru njuumte ci yoon wi nañ ko waxtaan ak moom moo gën yenn yi nañ bàyyi internet beeg par paroog yàqante gi amul njariñ ndax bëri na mag ñoo xam ne ndaw ñi tey bu ñu leen xamee grace à Gana Messere seenum liggéey Sëñ Tuubaa lu màgg la waaye liggéey boo gis dañ koy wane te moom wane liggéeyu mag ñi moo ko taxoon a jóg ñu avancé ca kanam suñu liggéey yooyu loolu suñu suñu suñu la ñuy dagana suñu suñu ci àll bi ko ñuy côté boobu la sëñ Mouhamadou nga xam si ne yaakaar naa bi sëñ bi ñibbi àjjana moom la tëjuloon sëñ Mouhamadou Lamine Diop David bi sëñ bi ñibbi àjjana moom la tëjuloon tëjoo woon moom ci njaare kon nga xam ne boo xoolee maam armée sëñ Madiba Sylla moo nekk ne la ca kanam ah. moom sorewut sëñ Madiba Sylla ak euh, boo avancé da ngay dem ci barabu sëñ jéeri waa daal ak sëñ Paate Amar nii maa gi sëñ Paate Amar ak sëñ jéeri ñoo dend ñoom ñaar te loolu sax sëñ bi ah. sëñ Tuubaa moo waxoon nañ leen ko yóbbu ci wetu sëñ Paate Amar ndax mbokkam soo avancé it barabu maam Seynabou Ndiaye moo nekk na la ca kanam ak euh, soxna Mariama Jaxate waajur suñu Abdou ak sëñ waajur suñu Abdou Lahad kii suñu Abdou Lahad Mbacke soxna Jaxate euh, mel euh, ak soxna Aminata Lo moom moo ngi foofu noonu uh-huh. Uh-huh. mooy ñoo ngi foofu noonu ak doomi sëñ borom Tuubaa ju na Aboubacry Sidir waaw sëñ ah, na ku mu tudde doomam ju mu tudde Aboubacry Sidir fa la la nekk mooy ci barabu soxna ñoom soxna ak ak ak magi sëñ Fallou ji sëñ Afia